force de l'ordre dugaat nañu seen euh, zone maanaam zone bi nga xam ne fa la ñu barricadé euh, boo waaw lacrymogène baa ngi nii Abdoulaye Seck lañ ko sànni woon suñu caméraman moom lañ ko sànni boo xoolee mu ngi nii euh, cinq mu daal di koy laal mais mais gis nga trois lañ ko vidé daal di koy sànni donc li fi am daal euh, doy na ba jéggi parce que avocat bi ñëwee dañ leen a gazé sànni leen ay lacrymogène journaliste presse bi nga xam ne moo toppoon ci ginnaaw aussi tamit pour couvrir ce qui se passe actuellement à cité Kër Gorgui ñoom tamit dañ leen a di gazé bu di Abdoulaye Seck bu bu Seneweb ak yeneen ñi xam ñoo fi nekk donc fi ne nii amul rassemblement amul dara donc gisuñu intérêt